jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si la mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak ciraanga ak poche def dara ay bis gi nu génn ginnaaw bi nu dégloo ajjuma samedi ak dimaas ñu ngi woon ci lu jëm ci koor philosophie ba ca nekk walla tarbiya ga ca nekk waaw philosophie koor ñu tàmbale woon ko ci jéem a wax koor ci làkku arab lu mu doon jéem a wax koor ci làkku pénc mi lu mu doon ba tolloon ci laay ji borom bi tabaaraka indi muy aaya téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett ba ca téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom yaa llaziina aamanu kutiba aleykumu siyaam bi ñëkkati jataay bi ci alxames ji ñu tolloon ci koor ci lislaam walla ruuxu siyaami fi lislaam waaw boroom xam-xam yi dañu daal jàpp rekk ne du ñaar yëf du ñett ndax borom benn laalakum tattaquun laalakum tattaquun gis nga loolu ci koor bu nu fexee ba amee ko ci sunu njaboot ame ko ci pénc mi ame ko ci dana soppi lu bare bare bare ci sunu doxalin ci sunu pénc waaw ndax koor bi bi alxuraan ne laalakum tattaquun boroom xam-xam ya dañ na laaj at taqwa ñu ne at taqwa maquusa min maddati al wiqaaya ñu wiqaaya ñu ne wiqaaya mooy xifsu shay amma yadurru ñoo lay muraad bi ñu ne al muraadu minhu xifzu nafsi amma yu'thim aw kama xaala dañu ne leen lan mooy taqwa ñu ne taqwa de buñ koy delloo ci cosaani baatam mu ngi jóge ci alwiqaaya gii firi fegu ñu ne ko luy fegu mu ne fegu mooy fekk am mbir bala ko mën a lor du ko lor mooy waral ñuy ub buntu kër mooy waral ñuy ub buntu néeg mooy waral ñuy ubbu ñuy ub buntu oto waaw mooy waral ñu muur ndàngam loolu yépp mooy wiqaaya mooy waral sax fi ne pénc mi di ñàkk ko waaw mooy waral fi ne pénc mi di ñàkk ko ndax euh, mën a fekk ginnaaw yàlla seen bopp ci liy wëndeelu ci pénc mi waaw te dugg ci yaram yi te doon virus bu nu gis ci bët kon laalakum tattaquun wiqaaya yooyu go ba amee ci sunu diggante nga xam ne kenn ku nekk dana mën a sàmm boppam ba lu koy jural bàkkaar du ca ne loolu penc mi soxla nañ ko kër yi soxla nañ ko entreprise soxla nañ ko société yi soxla nañ ko la la'allakum tattaqun penc mi léeg-léeg nga gis koo xam ne ginnaaw bokkul ci ña am la la'allakum tattaqun day nekk ci société wala entreprise di def ay double facturation chef am du ko yëg waaye ci personnel bi am na ku yëg li kii di def nga ne ko diw bàyyi li ngay def mu daan lay déclarer guerre mu daan lay déclarer ger du la sant de déet da lay déclarer guerre danga ma bañ fekk danga koo bëgg waaw léegi mu jàgg penc mi ku gis luy def ku def lu du nag sa noona nga ne ca cell léegi penc mi yàqu ger yi tasaaroo waaw lépp yàqu te ku ne xam na ne nun sunum réew bañ dépare indépendance lañ dépare woon bokkut ak fi nu toll léegi waaw daanaka mën nga ne mel na at dong la doxal rek tàmbalee soppeeku manam nu yàlla yërëm laalakum waaw nekk ci entreprise wala société di def ay double facturation sa kilifa yëgu la waaye personnel bi am na ku la ci yëg ndax nëbbatu gi du mën a nekk kooku yëg la ne la diw waaye li ngay def ni rek nga ne ko xam duggal ci la si yoon nekk li ngeen di fémiste naafeq yi ngeen doon man rek nga bañ ah jar la sax ba dem seeti bàyyi mor xoj pour mu sëriñtul la ko loo ko fi jar ana laalakum na ana koor gi ana koor gi léeg-léeg gis koo xam ne kii day liggéey ci usine waaye usine bi mbiskit lay defar saa buy wàcc wàccaale kilo kilo mbiskit kilo mbiskit boobu ngay wàccaale da koo moom am na ci barab boo xam ne bii port lañ ko tuddee waaw ñoom colonel Issa ñoo fa nekk ak ñi mel ni ñoom yàlla yàlla sàmm leen waaye léeg-léeg dangay gis ku ku fa ab otoom jaar bagaas yi na ci biir oto bi du génn koo ko jël koo ko jël ko dem gaa yi koy jël kat ay tur yu baax la ñuy am ay tur yu yiw ay nangam ak nangam daal mel ni jàpp ne affaire boobu daal wërta garaaw quoi waaw fi daal ko fi jaar oto bi bu fekkee ndax nit ñi mën nañu jënd seen oto def ay bagage ci biir waaye oto bi daa war na ñum ba ñëw kër borom non foofa lañuy ñuy wëqi la fa nekk waaw mu ngoog waaw du xam nga ñi nag yàgg suub la <laughs> du xam ngañ ji yàgg suub la nga dem ci télé yeeg rajo yeeg ñoom seen yooyu avant première yeeg yu ni demee ñu ñu jàppe ko ay maccaat waaw loolu Euh, koor daa bëgg dindi dindi si yu sew sewaan yooyu waaw gis koo xam ne kii dafa jàpp ne comme moom day liggéey ci tali bi dañ ko war a wutal poste bu am maccaat moo tax am na système bu am solo bu ñuy def boo xam ne kii liggéey xaalis daf koy am ca la muy liggéey mën naa dalalum xelam tey bu ñu nee dañuy euh, jàppale xale yi ci ñu liggéey ak a baax ak a baax waaye fi ne bu ñu jëloon xaaj bi teg ci loxol imaam lay Ndaw ca ndànd waaw mu bëgg a segg ndaw ku ndaa yi bëgg sedd ñu dëkk ndànd de mu jàgg li taxoon yëf yi jóg du ko def bu ñu nee dañuy recruter ay jàngalekat waaw déedéet ñoom inspecteur arfan lañuy jël ne leen lii concours la xàmmewul paateeg bàccak gallaay ñépp a ko bokk ñépp a ko moom gis nga transparence yooyu ci pénc day tax waa pénc mi bëgg ñu jiite pénc mi bëggante am su ci loolu amul dañuy bañante te bañante gi baaxul jigunu concours lañ ko war a def concours bi xamewul bàccak paate non li ñuy laaj daal ku ci am moyen rek ja jël nañ la waaye bu ñu ko dugalee ci recruter nañ ma baal mooy jox ma ko ma daal di recruter Pape Dia daal di recruter euh, saaliwu def nangam def nangam fekk na warta demee noonu laalakum tattaxuuna maanaam koor mbokk yi koor dëgg su fekkee yëmuluñ ko xiif ak mar dong ngoon jot ñu lekk tàndarma di lekk di lekk ba mun ñoo naafi la mel ni ndogul ka ma xam loolu lim ñu jural du bari at mu jot rek koor ñëw euh, la maam suñu tubaab ak la ak la baqari waaw ñu bari ci koor gi woor ba ngoon rek mel ni nag di lekke maasale rek mu ne googu koor ëpp naa def mbokk yi koor dafa bëgg ñëw indil ñu at ak at taqwa mooy fegu lépp lu jur bàkkaar nga jàng caa fegu waaw te it ruux bi ci am mooy ki na la ku moom ceeb bii nga ne man ku moom ndox mii nga ne man ku moom jonguma ji nga ne man ñu naa wàcc koor gi ñëw na bëccëg bi yépp ter nañ la yooyu lu ñu lay jàngal mooy boo waree man fee bàyyi yooyu waaye fi ne yàlla xam doy na bu koor gi mokkoon bu koor gi mokkoon liggéeyu OFNAC gën fee yomb bu koor gi mokkoon liggéeyu CREI yi gën fee yomb waaw mas na ñoo woo ca nag jamono ñoom euh, Sidi Seck ak euh, soxna sa ñu ñu wooñu ci waxtaanu euh, lislaam ak xeex ger lislaam ak xeex alal yu dëgganut yi ñoom OFNAC ak CREI yi da damay wax ne ay boîte yu baax lañu malheureusement nun sunum réew la yàlla xam doy na waaw keroog imaam Fadilou taal bu Poye 1 necc la fa benn xis sabab ñépp a jóg fa tasu waaw ci benn boroom xam-xam bu ñu tuddee Omar ibn Abdul Aziz waaw nee na dafa dañ ko fal dañ ko fal def ko njiit def ko njiit nee na mu xëy dem tool mu ngi mel ni premier ministre bu xëy buñ ko falee daal di dem tool xam nga nun sunum réew ku yu bàyyi say tool ñi ci ëpp boo ku falu bàyyi say tool bàyyi la nga doon liggéeyee looy def politique rek àdduna tukki mu xëy dem tool ñu soxla ko gisuñu ko ñu wooyu ko ca tool yi mu ñëw mu war mu war a signé benn document gaa yi xam ne lii kat du sotti lii kat du sotti looloo juraloon suñu sëriñ si ñu leen di demal tool ñu leen demal du leen du leen tee dem tool nag ñoom waaye dañ leen doon demal tool jàpp ci liggéey bi ndax ñoom ñu man ñoo féete fi ñu bëgg ñu féete ñu fa ñu daal ne Omar ibn Abdul Aziz kon kat léegi dangaa war a toog mu ne lu may dunde ñu ne ko kon ci trésor bi daal la ci dogal looy dunde daal ne ko léegi ñaata ngay dépense par bis mu ne leen soxna see ma ko gën a xam ñu woo soxna si laaj ko yéen lu ngeen war dunde par bis mu ne ah, deux mille cinq cent doy nañu par jour añ reer ndekki deux mille cinq cent mbokki trésor public daggal ko deux mille cinq cent par jour calculel ko jox ko ko soxna si di di yóbbu deux mille francs marché di denc cinq cent di yóbbu euh, deux mille francs marché di denc cinq cent cinq cent booy denc ba muy juróom-ñaari at jàpp juróom-ñett par bés calculer leen ko mu xëy nag bés na ne ne ne ne jëkkër ji dama bëgg euh, lal armoire ak coiffeuse coiffeuse dama la wax waaw jëkk ji ne ko ah waaw mu daal di génn xaalis ba jox ko ne ko joxal ma ko saaliwu jaw muutal ma ci yooyu <laughs> waaye jëkkër ji mbokk yi posé ko une question pertinente def na ko foo jëlee xaalis bi li nga xam ne ñun duñu ko laaj ana laki hada ja Zakaria laajoon Maryama ñun duñu ko laaj foo jële xaalis bi jabar ja it néewu ko sama nijaay ma ko may néewu ko sama càmmiña ma ko may déedéet néewu ko dama bokkoon cib tontine déedéet daf ne ko deux mille cinq cent yi ñu doon jox ñuy dépensoo laa doon denc cinq cent di yóbbu deux mille yi marché jëkkër ji ne ko jërëjëf daa di woo ministre ba yor wàllu budget ne ko li ngeen ñu daggaloon ci budget dafa ëpp mu ne ha mu ne leen deux mille francs lañ doon lañ doon dépensoo cinq cent bi moo doon des moo nekk nii ci mbuus gi war naa mat euh, vingt vingt cinq million ci misaal jël leen ko ngeen yóbbu ko trésor laa ilaha illallah xam naa bu ko alaaji ahmadu mbay déggee ci euh, cité jàmmalaay dana jóg toog ndax moom jaar na ci moom jaar na ci liggéey xaalis ba des waaw professeur Rawane Mbaye bu ko déggee moom it dana jóg toog ndax jaar na ci waaw suñu waajur wala ca Louga Hadj Abbas Sall bu ko doom yi déggee jóg toog ndax jaar nañ ci financé la jox la budget jox la nangam nga liggéey mu des nga delloo si weccet ñi may wax nii xam naa leen ne ñoom jaar nañ ci waaw ay million nga xam ne kenn ka desaloon na quarante million kenn ko waxuma la quarante millions mais deux cent millions xaw ma trois cent millions desaloon na ko gàddu <laughs> ko dem ba bitim réew delloo ji weccet wa Haji Abbas Sall allahu akbar ba muy liggéey alxanafiya gële daara ja liggéey ba noppi danga takk xaalis ba delloo ji màkk kooku ne ko ah, lii nag mu ne ko daal des ca la mu yóbbu woon ah man di musuma jot weccet <laughs> ak fa waxtaan wa mujj ndeysaan waaw yi koor de loolu jàngal si koor daal loolu ñu jàngal si waaw mooy dañu dugg ci ndox mi te yori xaftaan te bañ a tooy ni ñuy def ba duñ tooy suñ xaftaan yi mooy wokk ko rek wokk ko rek ba génn ndox mi te xaftaan bi du tooy loolooy koor la'allakum tattaquun laalakum tattaqun kon koor googu mooy dox diggante nit ñi ñiy woor wa baynal muyóoli al marzula wal munkaraat waaw jëpp jikko ju baaxut koor dañoo jàngal ñu ne wares na koo bàyyi ñu bañ a nekk pencum jën ku mën sa moroom seex ko mbokk yi bu koor ñëwee individu bi maanaam nit ki waaw professeur Arfan wala inspecteur Arfan ngeen baal ma nit ki su fekkee woor na bu fekkee daane ci penc mi mbaa mu ne këram day mën a fegal boppam ak bàyyi ma bàyyi ma mooy jëfandikoo luwaay àll bi shariatul xaaba waaw booy seetaan documentaire yi ku bukki ëpp doole def la ko ku gaynde doole def la ko àll bi loolu la fi xew wër te xew nag sunu pénc bu fekkee koor ñëw na bu koor ñëwee ki ëpp doole ki mu ëpp doole du ko ko won ki ëppale nit ki du ko ko won bu koor ñëwee ku ci nekk ñun dangay nangoo yem ci li nga moom doyloo ko kenn du tibb kees entreprise yi am na ci yu daanu société yi am na ci yu daanu jenn waaye lekk xaalis ba jenn waaye lekk xaalis ba te su penc mi dul jóg ci yooyu day mu jàgg ñépp a koy ñemee def mbokk yu koor day fegal kon nit ki moom ci boppam mu def yu mel noonu xam nga bu ñu nee léegi ab ñàkk day fegal nit feebar koor gi daa war a ñëw ñàkk nu ñun ñëpp koor gi daa war a ñëw vaccin nu ñun ñëpp ñu jël vaccin bi waaw mu jeex tàkk su vaccin bi mokkee moo ñuy fegal ci sunu loxo du tàlli jël fi jàmbur waaw waaw sunu làmmiñ du tàlli di wax ci nit lu jaaduwut mukk duñ ko ñeme sax nag fit woowu duñ ko ñeme mukk te it maa yalfisu min qawlin illa ladayhi raqibun atid li may wax nii dinaa ko waxaat ci biir bàmmeel waxaat ko ci kanam sunu borom bu jubee nu sant ko bu jubut nu jégglu ko koor ni muy jariñee nit ki individu bi nun lay jariñe pénc mi nun lay jariñe pénc mi ndax xam nga fan yi li li ñol ñol ji bari bari ci politik bi ak nangam ak dal xaw naa am ak dal xaw naa am yàlla na waxtaan yële ñuy waxtaan jur dara élection yi kañ la waaw ban dat la yal na waxtaan wa jur jàmm waxtaan wa jur jàmm nag ña ko siq ku ci ne dangay nangoo teggi sa tànk ci dara bu ñu ne deux mille vingt et un dat sàngam ñu ne deux mille vingt deux dat sàngam ña ca vingt deux nañ ñëw tuuti ñi ci vingt et nañ dem tuuti ñu tase fenn te foofu ñu tase ñu tiye ko fa ñu téye ko fa waaw mu jur jàmm yal na penc mi am jàmm koor day ñëw euh, waxtaan ak ñaari kan yooyu nga xam ne ñooy waxtaani penc mi ku ci nekk nangoo euh, kii dellu ginnaaw tuuti kii avancé tuuti mooy tax ñu daje waaye bu ku nekk taxawee fa nga taxaw duñ daje mukk max la ko tey duñ daje mukk loolu loolay tax penc mi su koor ñëwee day def nit mu nekk nit ci biir nit day fekk nit mu waaw mu def day fekk nit mu defar nit ci biir nit waaye nit ku du nekk nit ku nekk ci biir xayawaan waaye du nekk xayawaan ci biir xayawaan encore waaye du nekk xayawaan ci biir nit waaw animal bu nekk ci biir animaux du ko doon animal bu nekk ci biir ay nit du ko doon waaye du doon nit bu nekk ci biiri animal animaux looloo tax aleyhi salaatu salaam kon waxam waxam jure ja innama sawmu junna fa ida kaana ahadukum saaiman falaa yarfus wala yajhal wa in imruun qaatala aw shaatama falyaqul inni saaim inni saaim ay bu dars boobu mokkoon yonent bi nee na koor junna koor ab vaccin la innama sawmu junna koor pakk la koor défense la koor mbubbu koŋ la hmm? waaw daf lay téye mu ne bu kenn ci yéen wooree bu mu def rafas rafas mooy woor ba noppi jigéen romb la nga naan ko jekk naag lalal naa la mu ne ëpp naa def kat wala jëxal bu kenn woor ba noppi yor jikkoy ceddo ñu ne ko lan mu ne ku woor ci yéen ku ko saaga bu mu fayu ku woor ci yéen ku ko bi bind bi jeexut ñuy jàng koor tarbiya ñu jàng koor ibaada bu leen neexee ci kanam suti ngeen woote ci 88 628 98 98 ngeen bës 2 nu ànd ci jataay bi nga xam ne day am lundi di am mardi di tàmbali huit heures di jeex di heures jërë ngeen jëf ci ànd beeg Sud FM seen rajo ci biir réew mi ak ci bitim réew sunu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii taxaw yor seen kayit bëgg la na firiñ fàncal xibaar yi ci tubaab firiñ fàncaloon ko ci wolof ñaanal yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu àndandoo bi nga xam ne mooy c 3 ak ñu ko fekk si yàlla yàlla defar seeni mbir